nuyu naa ñëpp fii laay tàmbali jël ci seen revue de presse teel sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan bay simbali wax li xew ci réew mi askanu sunu gaal gi yëgle gi ne coowul tolérance yi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko yëkkati coowul xam nañu ni ñuy négocier li jëm ci wàllum borom ñaari tur ci réew mi askanu sunu gaal yëgle gi naan man kàddu yi nga xamante moom la ci Ousmane Sonko yëkkati am nañu mu naqari Matar Gueye Jamra moom bu mat bu rëy bu bu ponkal am ci ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ci kàddu gi nga xamante ni moom la yëkkati mbir mi dinañ ko ak wàllum intolérance yëgle gi nee loolu moo ko sonal ak ak itam yeneen i kilifa diine yu nekk ci réewum askanu sunu gaal nee ñu wax ji premier ministre wax neexu leen yëgle gi nee ku ne xam ne ni ki tey ji moo di tëj tëj pèlerinage boobu ngin bi la yëgle gi naan man pasteur bii di Waly Sarr yëkkati na ay wax ci wàllum góor jigéen nee sunu diine nangu ko te itam des koy tere le réveil par la puissance du Saint-Esprit yëgle gi naan gendarmerie ba police ñëpp fa daje ngir rek saytu li nga xam ne moo di kaaraangeeg askan wa fay teew yëglekaay gi ne moom kay a baax xar ci tànk tuba yëpp ñu waaxu wuti tabaski yëglekaay gi naan man fi mu toll nii tembe ñi nga xamante ne ñoo yoru jur rawatina ñi nga xam ne ñoo di sàmm si ña ca daral ya ubbi yéenekaay bi fi mu toll nii tembe tiit jaaxle jommi jomet la ñu def rawatina fa nga xam ni moo di ca lingeer yëglekaay gi naan man ay sàcc sàmba buy ay wuyu ci jëmi boppam ñoo fa wàcc ca daral ga sàcc xar ya waaye nag plus de peur nañ leen jàpp nañ leen fi toll nii tembe kay daralug Linguère kontaan la ñu def ndax jàpp gi nga xamante ni moom la ñu jàpp wuyu see bande see saay saay si askanu sunu gaal moo kañ la ñuy tàggoog li jëm ci wàllum dem beeg dikk bi nga xamante gone yaa ngi koy bëgg di def ci réewum tugal di jaar ci suuf ubbil yéenekaay bi ci géej gi migration irrégulière yëglekaay gi nan maan ca gore laa la wax ngoyete nañ fa wuy jàppati nañ fa gaal gu doon dem ci réewum askanu sunu gaal yëglekaay gi nan maan ñi nga xamante ne ñoo war a defar dañoo mujj di yàq ma sous officier bi ci web ca Thiès kaay bennub dëkk ñaari gaar diggante samedi le 18 ak dimanche le 19 ci guddi yëgle gi naan man ca lan ko ngoy fekk kook juróomi kilo yamba simokaali buksu saafur indien yëgle gi naan man ca ab wotoom lan ko fekk de moom ci jëmi boppam sous-officier de l'armée sénégalaise bi lee ma ngay servir ca ndakaaru njaay jal Diop yéen autorité yi ubbil yëgle bi Babacar Diop mairub Thiès kaay bennub dëkk ñaari gaar ne mi ngi leen di alerté nag li nga xamante ni moo xew ca Turquie sonal bu a baax yenn sénégalais yi nga xamante nga fa te dara jafe-jafe kayit ñii passeport ñii seen séjour jeex te kun ci ngooy boo wàccu di tëdd juróom benn weeri kaso mbaa ba ñaari ati kaso yëgle kaay gi naan man na doy na waar lool moom ma nga xewe ca wi la ñu bokk ma ne ay sénégalais dëgg la ñu war nañ leen a mën a dimbali moom meerub Thiès kaay bennub dëkk ñaari gaar Babacar Diop ña nga xamante ne ñoo di Thiès waa yenn ca Istanbul ñoom ñi nga xamante ne nee ñu noppi nañ ngir jàppale ko ci développement Thiès kaay gi lee yëgle kaay gi naan man taxawal bul dem ma ca mbaaw itam jàpp nañ fa lu tolloog cent cinquante kilogramme drogue ëpp tëlaw ubbil yéene kaay yi takk der saako ngooy ci ab watalan ko fekk laa wax buñ ca noppee ñu wax ci leneen ma ni dund gu ci réew askanu sunu gaal askan wi yëpp moo di seen yitte mooy ñu wàññi ko nag lii kañ lay wàññeeku mi li nga xamante ni moo di drogue bi ci réew mi yëgle kaay gi naan man ca Kédougou ab dinaeen ci jëmi boppam lan ca jàppati ak ñaari kilogramme yamba buñ ca jógee ñu doxantu ba ca kanel yëgle kaay gi naan man la fa xew moo yéeme te doy waar ab xale bu jigéen boo xamante ni treize ans dong la am yëglekaay gi naan maan aw baykat a ko téye lu tolloog ñetti fanu yàlla di sëgg ci kawam di ko violé fanu nu ngoy ko ñu nekk ci jamono joo xamante ni yëglekaay gi naan man léeg-léeg mu tàng léeg-léeg mu sedd bu tàngee nag ñi nga xamante ne ñoo di waajuri ndongo yi élèves yi ci jëmmi boppam seeni waajur tiit ak jaaxle la ñuy nekkee ndax kat gone yi dañuy dem ci place yi nee dañuy jéem a féexlu ñii di sangu ci géej gi yëglekaay gi naan man léegoo léeg nag am ñu daal di lab ubbi yéenekaay bi ca place u Caaroy sur Mer ci jëmi boppam aw élève ci jëmi boppam yëglekaay gi man moo fa lab nag te kat muy dem ma nga ànd ki moroom mam mu nekk mbir moo xamante ne mbir mu yéemale te doy waar kon nag gone yi déglu leen seen diggali waajur yi lee te toog ci kër yi du ci sooy sangu moo gën sëy laatiir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkeen jëf di ñu uh, topp uh, fii ci uh, Thiès info saa su nekk rek ñuy am mbégte contentement li nga xamante ni moom moo di xibaar yi donc ngeen teewlu li nga xamante ni moom moo di revue de presse bi ñuy ñaanal rek suñu mbokk jàngu bi yépp rawatina nag képp koo xamante rek wax dëgg yàlla am yaa nga ca fa nga xamante ni moo di ca uh, Pouf uh, Ngin ajum jàmm ak salaam rek di ñaan yàlla nag uh, subhaanahu wa taala mi dara teewul def jàmm ci réewum askanu sunu gaal ndax jàmm jooju des koo soxla waaye itam dorog bi jomba jonge ci réewum askanu sunu gaal nag lii nag moom bàjj na xuja sëñ Abdou Salaam Sarr borom tegtal ak jàmmoo sama xarit ah waay moo baax sëñ Abdou Salaam Sarr moo baax sama xarita ah, sama waay la baax la def ba romb baax laa moom daal mu jot rek xarum tabaski moo ma koy fàggul xam nga ni lii neex na. waaw kooku kon xam nga ni jar naa jaajëfal ak ñëpp rek ñu may teewlu ñëpp soppe yi wax dëgg yàlla kontaan nañu ci yéen bu baax a baax a baax di leen jox seen wàcc waaye ak di leen kontaane waaw sëñ Abdou Salam Sarr ñun bég nañu waaw bég nañu itam ci képp koo xamante ne yaa ngi nuy bàyyi xel pour loo sama xarit maa ngi koy nuy bu baax a baax di ko bigi mbokk yi nag ñu wax leen ni leen rek réew mi moom réewum jàmm la réewum teraanga la réewum réewum yërmande la réewum tawféex la kon nag dorog bii di jombaa jonge ci réew mi du fi yoon waaye itam itam ah, premier ministre itam ah, am na ci ay kàddu yoo xamante ni ñaa ngi koy yëkkati di ko jëmale ci jëmmam ji am ci ñoo xamante ni ñoom nee nañu Ousmane Sonko nu mën a mel des koy bëgg donc mu nekk ay kàddu yoo xamante ni eh, ñi daal ñu ngi koy yëkkati ci ginnaaw rek eh, kàddu yi nga xamante ni moom moo jiboon ca ba ngeen dégg itam ah, maam Makhtar Gueye Jamra ni mu ci waxee rek eh, bañ gi nga xamante ni moom la ko bañ ba kandaar ci mu nekk rek loo xamante ni lu ñu teewlu la tey itam euh, lu lu réewum askan sunu gaal yëpp di waxtaane la mbokk yi buñ ca jógee rek dañuy daal di xelli li nga xamante ni moo di café gi euh, ñi man a naan te simbaleexu ñëpp ñu bàyyi leen ñu naan ci simbaleexu ci ba suba ak jàmm ak salaam ñun amuñu biddanti amuñu lundi amuñu mardi amuñu dimanche ñun amuñu férié amuñu leneen ak leneen saa su nekk rek li ngeen li ngeen bëgg ñun ci la ñuy ci la ñuy ci la ñuy également dox. Euh, ba tax na kon ñu daal di xool rek ñi mujjoo commentaire euh, saa su nekk rek ñoom la ñuy tudd bégg leen jaajëfal leen Pullo sama xarit la maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama xarit maa lay ñaanal wér gu yaram tawféex ak taysiir Kéba Dia sama nit la moom bu revue de presse bi yéexoo dugg sax daf may woon ni ma waa Fall fu ngeen ne ma ne ko keebaa man dugalu ma ko <laughs> waa direction ñoo koy dugal ah euh, maa ngi bëggee Xadi sama xarit moom nee na ñoom la nga xamante ne moom lañ soxla mooy passeport. ñoom waa Turquie léegi rek maire maa ngi koy wax maire Babacar Diop bu Thiès kaay mi ngi ko doon àddu di ci wax donc mu nekk loo xamante ni tamit lu ñu war a lu ñu war a lu ñu war a lu ñu war a bàyyi lu ñu war a bàyyi xel la donc mu nekk loo xamante ni lu ñu war a bàyyi xel la également donc moo sekk maa ngi lay bëgg bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la kontaane euh, di bëgg ci bu baax a baax euh, ay fay di kontaan bu baax a baax ci Issa Dangoura Issa Dangoura sama xarit la maa ngi koy bëgg bu baax a baax Baba Seck Baba Seck maa ngi koy bëgg Binda Sarr itam euh, bu Déthié Fall sama xarit la maa ngi koy nuyu bu baax a baax man dama xamul ndax Déthié Fall politicien ngay wax wala ban Déthié Fall ngay wax waaye daal bëgg naa mu leer ma <laughs> Cheikh Wade maa ngi koy bëgg bu baax a baax El Hadj sama xarit la. di bigi Abdou Kane bu baax a baax euh, asta asta loo asta maa ngi koy bigi bu baax a baax di ko jox wàcc waayam di bigi maam Amary fay di bigi El Hadji Ngom sama xarit la Baye Modou Yàdd moom ku baax la ci man macha allah mais ñoom nag nee ñu ñeneen ñoom ci jëmi boppam euh, li ñu soxla moom mooy euh, ab poste courant ñoom ab poste courant la ñu soxla donc euh, soxla nañ ko donc kon dan ko war a am nag nañ leen ci jàppale ah daam kunta maa ngi lay bëggee bu baax a baax Samba Balde maa ngi koy nii bu baax a baax di ko bëggee di ko jox waa ci waayam Cheikh Omar Diop maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee ma bëggee Guèye di bëggee Mass Pouy di Mass Pouy maa ngi koy biggee di bëggee Modou Laye Bey 1 ak yëpp sama xarit la Sey euh, Cheikh maa ngi koy nii Maodo Kane di bëggee Maodo Kane sama xarit la bu baax a baax a baax waaw mu ngi ñaanal Lac de Guiers 2 yàlla sàmm ko waaye itam génn ko ci jafe-jafe yi tey tem ñi nga xamante ne ñoo di ay naataangooy mbërëm nag war nañ cee mën a jàpp nag war nañ cee mën a jàpp. nit ku dul juum amul yàlla rek dul juum te dund gi sotteegul lu ne xaj na ca ndax nit nag bu nekkee ci ay jafe-jafe mbaa mu nekk ci ay tolof-tolof danga koy ñaanal rek mu génn ci ak jàmm ak salaam ndax nag yàlla léeg-léeg nag dina jël waayam teg ko nattu ngir yokk ay dara jaam ci lu mu yëgul waaye nag bu mu tax ngay def lu la neex rek lu dal dal nga ni nattu la del xool bu baax a baax di sàmm te xam ni nit ki nekkoo ko yow kese comme man faal damel man faal damel man nekkuma faal damelum faal damel kese dafa am ay so dama am ay soppe yu ma bëgg di ma sopp sëñ Abdou Salaam Sarr sëñ Abdou faal yéen ñëpp daal damay bañ a lim sax waruma woon a lim waaye dama am ay soppe yoo xam dañu maa bëgg ñooñu lu ma mën di def ci sama àdduna lu mu mën di doon rek dama leen a war a sóoraale un dama am njaboot lépp lu ma war a def rek ci sama dund damaa war di sóoraale sama njaboot bu ko defee da nga am famille danga am mag da nga am ay rak da nga am ñu la bëgg kon lépp looy defati da leen leer ne yow euh, da nga leen di sóoraale ndax tey jii boo kalang-kalangee ba ñu tëj la kaso ñoom ngay sonal boo fi def defloo ba nu topp la ci yenn ñoom ngay sonal kon nit ki del sàmm sa yow maanaam nit ki du yow kese àdduna du yow kese du yow kese bu doon ne ku nekk bopp sa bopp la ngàcce pucca kon ku ne lu lu neex waaye def waaye dañoo nekk ci réew moo xamante ne on est borné par des réglement et des normes loi ay règlement ak ay norme moom moo ñu tënk kon kenn ku ci nekk ci ñun war ngaa xoolaat bu baax a baax li ngay def waaw Michel Tine maa ngi lay bëggee Mamadou Lamine Ndiaye maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee Sam Seck kon nag bëgg nañ ñëpp mbokk yi waa Piroumdër yi ba Gossas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax a baax di leen kontaane mbokk yi kon ñu jox leen dig daje bu suba ak jàmm ak salaam maître Kouyaté greffier maa ngi koy bëggee bu baax a baax IF Omar kan maa ngi koy nuyu bu baax a baax Assane Thiandoum euh, maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax a baax euh, kon nag ñu jox ñëpp euh, dig daje bu subaa ak jàmm ak salaam jërë ngeen jëf.